honorable député euh, Théodore Montey euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay di la dalal tey jii ngay député euh, benn euh, bokk ci Benno Bokk Yaakaar di euh, leader de l'Union citoyenne buntu bi honorable marathon budgétaire bu session ordinaire unique 2020 2021 tàmbali na le 26 novembre gi wees tey jii nan nga gisee qualité débat ak wax maanaam waxtaan yi fa am. waaw damay fàttali rek ne que 26 novembre bi ñu weesu plénière yi lañ lañ tàmbali maanaam débat yi ñuy def. ci hémicycle nga xam ñëpp dañ koy teewee mm-hmm. mais bala laata boobu daje woon nañ ci li ñuy wax commission financière élargie à la commission technique mm-hmm. pour càmbar euh, budget yi liggéey bi gën a tar foofu lañ koy defee parce que foofu euh, ministre bi dafay ñëw ak technicien yi ñu toog ñoom ñëpp mm-hmm. ñu xool budget bi càmbar ci waxtaan ci euh, directeur du budget ak ministre finance ñëw teewee tamit ñu waxtaanee lépp def benn rapport rapport boobu la ñuy indi plénière loolu moo tàmbali fi ñu toll nii. Mm-hmm. plénière bi nag bi muy tàmbali gis nañ ci ay sikki sàkk gis nañ ci ay député yu xiiroo ke ŋaayoo gis nañ ci ay député yu xuloo gis nañ ci ay saagante gis nañ ci euh, un peu ay débordement mm-hmm. ni koy waxee mm-hmm. mais euh, fi ñu toll nii je pense que nit ñi delloo si nañ seen xel euh, amaana ne am nañu waxtaan ak ñoom dal am na ñu ngi waxtaan waxtaan am solo. Mhm. Euh, def liggéey bu am dayo di càmbar euh, budget ministère yi di discuter ñu indi seen réponse population bi di ko suivre di xam lan moo xew assemblée nationale. Mhm. donc euh, je pense wax nga ko waaw ci débordement yooyu la sax ndax foofu lañuy ñuy xaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pencum ndaw réew mi. a ah, dama koy dama koy damay dama koy wax mu leer. Mhm. député xam nga dañ naan honorable honorable mooy ku am maqaama. kuñ war a euh, kuñ war a sargal mhm. waaye honorable yow doo ko jox sa bopp xam nga euh, constitution Sénégal daf ne député à l'Assemblée nationale bu ñu la tegalee honorable daf fekk sa jikko ak sa jëfin méngoo ak honorable mhm. donc li ñu gis li ñu gis noonu ay xeex ay saaga ay xuloo loolu du cëru député du cëru député dégg naa sax keroog bi xeex beeg yooyu amee mhm. journaliste bi doon filmer gars yi dal nañ ci kawam ma ne leen journaliste bi filme liggéeyam la doon def kooku kooku looloo ko fa indi yéen yéen a wàcc seen ànd mhm. yéen ñi nga xam ne da wi dañ leen yónni assemblée nationale pour ngeen ñëw teewal leen ngeen ñëw di xuloo loolu du cëru député loolu du joxe image bu rafet ci assemblée nationale du Sénégal du joxe image bu rafet ci xale yi xale yi bu ñuy xool image assemblée nationale gis député yi ñu xool beneen assemblée nationale nit ñi di def ay débat yu profond dañ naan waa ñun est-ce que suñ député yi ay nit lañ. Mm-hmm. mais je pense que euh, nit ñi delloo si nañ seen xel. di fàttali nag ne euh, il faut que ñu def attention parce que assemblée nationale représentation nationale la tamit. Mm-hmm. c'est à Sénégal c'est-à-dire ni Sénégal bindoo noonu la assemblée nationale bindoo fu nekk le député di jóge ak jikko bu nekk ak yar bu nekk. ñu daje ñun ñëpp assemblée nationale. Mhm. mais je pense que bu ñu continuer di waxtaan ak nit ñi euh, di ñaax di jubbanti. dinañ am euh, assemblée bu gën a correct. Mhm. ba ñuy voté euh, budget ministère agriculture ak équipement rural dégg nañ ci kii di député bi di Mamadou Lamine Diallo muy ñaawlu lii di procédure bi nga xam ne moom moo am ba agsi fii moom ne na commission des finances moo waron examiner budget bi d'abord laata ñuy àgg agsi fi mu àgg nii loo ñu mën a wax ci mbir moom. bon man euh, ci li ma fekkee de normal gis naa commission finance euh, recevoir ministère de l'agriculture en commission parce que amul ministère bu mun a jàll plénière te jaarul commission des finance mm-hmm. parce que rapport mooy ñëw plénière. Mm-hmm. te rapport boobu commission bi moo koy def c'est-à-dire bu ñu toogee commission waxtaan ba pare. li ñu waxtaan foofu dañ koy enregistrer. Mm-hmm. Assemblée nationale loo fi munti wax dañ koy enregistrer moo tax kenn du démarrer débat te micro yi parewul donc dañ koy enregistrer bu ñu ko enregistrer après ñu transcrire ko par écrit rapporteur bi doog ko mun a ñëw lire en plénière ñu discuter ci donc man mun naa seede ne que euh, ministère de l'agriculture et de l'équipement rural jaar na commission technique balaa muy ñëw plénière. honorable tey jii ba doon xayma liggéeyu treizième législature ndax mën nañ ndax jàpp nga ne def na fi li fi yi mu wuutu defoon. bon xam nga en tant que député. wala def na lu raw mënuma wax ne def na lu raw wala def na lu néew. parce que xam nga législature. Mhm. Euh, dañuy ute. Mhm. bokk contexte yi bokkul. contexte yi bokkul dañ nekk ci suñu législature bi en tout cas dañ nekk législature boo xam ne tendance dominante bi mooy que ne dañu am une très forte majorité mm-hmm. xam nga boo amee une très forte majorité léeg-léeg débat bi dafay weng euh, weng googu nag day tax déséquilibre bu amee ci yenn assemblée yi waxtaan bi dootul yombati dootul neexati mm-hmm. échange du amati day mel ni euh, benn orchestre boo xam ne benn nit rek moo fa nekk moom rek lay woy <laughs> euh, mais en réalité est-ce que législature bi moo gën bële wala bële moo gën bi je pense que kenn du nattee noonu euh, liggéeyu député liggéeyu député ñu ngi koy nattee ci est-ce que ñett yiñ ko dénk mu ngi koy def. ndax def na ñett yooyu ñu ko dénk. waaw euh, ci li ma dégg de. man député bu bees laa mais ci li ma dégg en terme de présence. Mhm. assemblée nationale député mosu fee présent yee nii. parce que euh, boo xoolee da gis ay jours yoo xam ne dañuy am plus de cent orateurs. Mhm. d'habitude dañ daan wax ne assemblée nationale deux ou trois ñooy ñëw quelques nit ñooy ñëw léeg sax nit ñi dañ daan daw di woote pour am quorum pour mun a voter mais fii man gis naa fi ay député yoo xam ne depuis le 3 novembre bi ñu démarré jógewuñ Dakar. ils sont dañuy nekk fii assemblée nationale dañuy xëy 9 heures dugg salle ba minuit bu ñuy wàcc dañuy doog a dem donc vraiment pour représentation bi je pense que ñu ngi koy respecter maintenant pour le l'aspect vote des lois la légifération vous savez la légifération Sénégal ñaari ñaari ñaari pàcc la bi état bi di indi ak bi député bi di proposé proposition de loi yi député yi war a def mm. soriwuñ ci bëriwul ay proposition de loi je pense que bi ñu commencé législature beeg léegi ñaar wala ñett moo ci am benn moo ci jàll muy réforme du code du règlement intérieur boo xam ne boobu sax daanaka man maa ko bindaatoon euh, donc parti boobu sooxe na mhm. beneen bi nekk euh, euh, évaluation des politiques publiques mhm. évaluation des politiques publiques boo xoolee d'abord déjà mission d'information bi ñu defoon sur le programme décennal de gestion des inondations loolu évaluation des poli politiques publiques la am na yeneen yu ñu def yoo xam ne peut-être askan kii public bi yëgu ko torop par exemple kii Prodac bi évaluer nañ ko man ci mission bi la bokkoon donc yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey donc est-ce que liggéey assemblée nationale fës na fës boo xam ne nit ñu xam nañ li député yi def loolu mooy problème bi l'assemblée ne communique pas par exemple maa ngi la koy wax mm-hmm. nit ñi plénière yi la gis duñ gis commission yi donc euh, ñun ci suñ bopp dañuy réfléchir de temps en temps naan est-ce que assemblée warul am un organe de presse dédié boo xam ne une télévision de du parlement buy wane débat yi en en truc nu ñu koy waxatee en en commission. di fësal lépp di fësal lépp li député yi di def. comme mm-hmm. ça askan wi ñuy yónni. mun a xam ne liggéey bi ñu ngi koy def wala déet. Mhm. ñu wax ci local yi honorable tey jii euh, dàq gi ñu ngi koy gën di laam-laame ndax jàpp nga ne yow it euh, amul ay conditions yi nga xam ne war na tax euh, ñu amal yi lépp élection. en réalité biñ ko tàmbalee dialogue politique bi ne dañuy toog waxtaan acteurs politiques yi ne dañuy toog waxtaan. Mhm. pour xool naka pour nekk waaw démocratie bi sooxee na et cetera ci laa ne ñu ngi pare pour reporter élection locale yi. Mhm. parce que dialogue politique expérience bi ma ci am toujours code électoral lañ ciy waxtaan code électoral boo ci commencé waxtaan rek mhm. yaa ngi dugg ci li ñuy wax ay ay calcul de délai parce que élection processus la élection nekkul ne dañuy dem ci bésu wat ba rek sànni carte mhm. dafa am processus dafa am fu muy jaar élection dafa war a am convocation du corps électoral dafa mhm. war a am euh, mbindu mi dafa war am Euh, joxe carte yi mhm. balaa ñuy yegg ca cappaandaw la loolu yëpp nag buñ ko nattee élection dafa am durée boo xam ne entre bi ñuy convoqué corps électoral bi ak bi ñuy voté mhm. dañ ko war a fiñ toll nii tembe mënatuñ respecté datu mars bi loolu nag man dama koy ñaawlu parce que bañ koy tàmbali xamoon nañ ko mhm. loolu loolu loolu lañ ci jublu woon <laughs> lañ ci jublu woon dàq élection yi démocratie nag li koy noyyiloo mooy élection démocratie boo xam amul élection à date échue mhm. démocratie boobu dañ ko xoj loolu mooy suñu problème fondamental waruñu euh, parce que pouvoir bi mhm. kiñ fal moomu ko askan wi moom moom kàttan gi moom moom doole gi moom moom alal ji daf koy jël dénk la ko ci diir diir googu bu jotee yow mënuloo toog man en tant que député mënuma toog ma ne damay prolonger suma mandat mhm. le maire mënul toog mu ne day prolonger mandat ya euh, président de la république loi bi mayu ko mu dàq datu élection datu élection lenn rek moo ko mën a dàq ñi ko seq ne duñ dem ci élection yi te loolu la politiciens yi nekk di def te lool dama yaakaar ne du lu rafet parce que dañu dénk ki la dénk nag bu waxtu wa jotee da nga koy delloo mu nat xool na ko liggéeyee est-ce que méngoo na ak nam ko bëggee woon. Mm-hmm. bu méngoo mu delloo la bu méngoowul mu jël ko jox ko sa morom. d'accord donc loolu mooy démocratie. ngay leaderu union citoyenne bunt bi euh, bokk ci Benno Bokk Yaakaar tey jii ndax euh, Benno ca Kaolack euh, ga nga xam ne foofu ngay militer wala sax foofooy sa base ndax tey jii yéen a ngi liggéey ci fédération. ñun nag dañ am benn benn doxalin benn démarche boo xam ne. bi ñuy ñëw ñun Macky 2012 dañ tàmbale. union citoyenne bunt bi ci ñi tabax Macky 2012 la bokk. Mhm. ñu président Macky Sall dem deuxième tour ñu créé benn bokk yaakaar ñu dugg benn bokk yaakaar mm-hmm. dañu dem ci élection yi pour soutenir le président Macky Sall il faut que ce soit très clair mm-hmm. bu ñuy dem élection locale même 2014 suñu liste bopp lañu amoon c'est-à-dire après les élections de 2012 ba ñuy dem élection locale suñu liste bopp lañu amoon man liste bi ma porté woon Kaolack alliance 2014 Kaolack ca kanam la tuddoon nekk ci bannière union citoyenne bunt bi parce que ñun dañu am tamit suñu programme bu ñuy porter mhm. programme boobu moo ñu tax di yëngu donc bu xam nga parti politique bu dul dem élection du parti politique ñun dañu ànd ak président Macky Sall en 2012 dañu ànd ak moom ci programme mhm. programme boobu mu koy dérouler ñu àndaat ak moom 2019 pour mu continuer dérouler programme boobu mais bu élection locale jotee wala élection législative jot dañuy jóg man par exemple ñi assemblée nationale union citoyenne moom ma fi indi bunt bi benn bokk yaakaar indiwuma dañu def suñ liste gagné bi ñu gagné ñu ñëw intégré groupe parlementaire bi par une demande écrite donc ñun noonu la ñuy doxalee donc bu élection locale jotee Kaolack mhm. suñu liste bopp la ñu am loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp. Idrissa Seck dugg siwaat euh, ci benn Bokk Yaakaar tey jii bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nee nañu lider ya ca nekk yëpp nee nañu gongo ban commentaire ngi ciy def. waaw bon xëy na xëy na ñoom nee nañ gongo man de démb présent woon. yow ci nga bokk ci leader yi non non man man man nekkuma fa woon de toute façon. xam nga man en réalité ñu bëri dañ naan leader union citoyenne mais man du ma président parti bi man directeur national opérationnel lu parti bi la xëj na man maa gën a fës rek mais président parti bi El Hadji Ibrahima Mbow la tudd mhm. donc euh, dégg na démb que conférence des leaders réuniru na pour xool e, seen liggéey accueillir président Idrissa Seck. nee nañ observateur la woon da nga ko yëguloon ah non non non non yooyu kenn ñemewu ma ci convoqué sax parce que du ma ci dem. man suma suma doxalin ñëpp xam nañ ko man affaire poli man damay politique. mais politique politicienne yëkkatiwuma man duma politicien je suis un homme politique. parce que dama am métier dama dugg ci politique pour joxe. Hmm. di ko natt nag ci fukki at. fukki at ak juróom ñaar fukki at maximum ma génn ci politique dem defi leneen donc politique alimentaire intéressé wu ba complot politique intéressé wu ma. lan mooy complot noonu loo jàpp. complot politique li ma jàpp ne mooy complot mhm. politique. mooy que ne munul ñu fal président 2012 mu commencé di wax ak ki doon contesté élection yam pendant quinze mois ñu xëy tey ne ay alliés lañ ça veut dire que ñun citoyen yi am na luñ def nëbbuñu ko loolu mooy complot def dara di ko nëbb say naataango. d'accord donc loolu moom mënuma ko accepter du mënu ko cautionner. honorable ci quelques mots rek immigration irrégulière bi dégg nañ la ci loo ci xalaat ak nan nga jàppee ne noonu lañ ko mën a saafaraat. alors dama xalaat ne que immigration euh, irrégulière bi euh, jàngoro la jàngoro ju métti métti la. Mhm. parce que boo gisee ay xale ay jigéen uuf doom dugg ci gaal. Mhm. da naan vraiment y a un problème problème bu toll noonu nag bu amee duñ ko régler euh, duñ jóg rek euh, régler ko nii. Mhm. parce que Sénégal dañ tàmm bu problème amee ñu foog ne que da ngay tëb rek gis solution non problème pour nga gis solution da koy càmbar. Mhm. bu ñu jàngatee problème bi ñu xam posé wu question yi laaj euh, def li tubaab di wax introspection dugg ci suñu biir. Mhm. xalaataat suñu dëkkin suñu nekkin lan la ñuy woon xale yi lan lañ leen dig xale yi est-ce que am nañ perspective est-ce que ñu ngi ñu ngi am yaakaar parce que yaakaar mooy dundal nit nit bu demee ba amatul yaakaar mhm. euh, daanaka dee na dafa am benn sociologue bu ne ñi yéeg ci gaal yi instant biñ ciy yéeg dafa fekk ñu dee socialement ba pare cest ci biir société bi amatuñ ci benn espoir looloo tax ñu yéeg ci gaal yi donc dañu war a def analyse yooyu yëpp xool lan lañ yaakaar ne moom lañuy fekki bitim réew. Mhm. xool lan lañ lan moo nekk fii lu leen naqari ba ñu am fitu yéeg ci gaal ak conviction boo xam ne xëj na dinañ ci dee. parce que boo leen interroger waa ji daf la naan man cinquante pour cent ma dee cinquante pour cent ma yegg moo ma gënal cent pour cent ma ñàkk. loolu lañ koy noonu lañu ne tontoo donc loolu nit bu fa xale ndaw bu fa tolloo vraiment dëkk bi yëpp a commencer par le chef de l'État ñoo war a mobiliser wu analyser problème bi indi ci solution parce que vraiment c'est des drames xëy na ñi dee ñoom dee nañ mm-hmm. mais ñiñ bàyyi yaay bi nga xam ne moo teggi nattam jox doom ji wala jaay urusam mm-hmm. jox doom ji kooku ba abadan daay man dappe du ko baal boppam donc vraiment dañ war Euh, analyser bu baax dañu war a càmbar problème bi indi ci solution te solution am na parce que Sénégal bëri na perspective mais perspective yooyu euh, quelquefois dañu dem vers l'essentiel dañu nekk dans le détail wala à la périphérie mooy tax duñu jot euh, li ñu war a duñ sol yenn solution yu baax yi duñ ko gis toujours merci beaucoup honorable jërëjëf